rédaction am nañu mbégte ànd ak tey ji nag ñu fas yéene ànd ak Moustapha Diakhaté nekk responsable politique euh, réew mi ci euh, nekk tamit plénipotentiel euh, foofee Moustapha maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo lay topp ci 24actu point com bon maa ngi jël sama nuyoo suñu sànq muy sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké di ñaan suñu borom dolli taxawaayam lool jagal ko lool ci wér ci di nuyu ci sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel yàlla nag suñu borom yàgg suñu kanam lool. jërëjëf euh, monsieur Diakhaté ci nuyoo bu am solo boobu ndax mën nga dellusiwaat sa yëngu-yëngu ci euh, foofee yëngu-yëngu ci politique ci foofee ca Kidira. waaye man Moustapha Diakhaté man maa nekk le plénipotentiaire département au niveau département de Bakel. en même temps di yëngu ci politique ci ci réew mi. muy parti Idrissa Seck. nekk fa ci responsable boo xam ne nii au niveau département maa ko yore foofu. ok euh, voilà gis nañu ni sa yëngu-yëngu xëy na tàmbale woon nga ko fii ci Touba avant ngay dem foofu ci Kidira élection yi jàll ngeen am ay jafe-jafe c'est-à-dire euh, njiitu réew mi gañe leen fi mu toll nii lan mooy jàngat bi nga xam ne def ngeen ko ak taxawaay bi ngeen am ngir parti réew mi gën a amaat doole foofee ci Kidira. waaw ma yëngu-yëngu tàmbali naa ko fii au niveau de Touba yaakaar naa parti bi man. te ñu ko sos laa bokk parce que depuis M6 yàgg naa képp ku ñu dem Moustapha Diakhaté réew mi ñëpp xam nañ ma ku am ku ko laaj ku may laam-laamee ci loolu mais ci jàngat bi ma am cim ci élection yi nga xam ne ni moo passé mooy Macky Sall foqarti na nguur gi mais ñun kenn ku ne xam na ne nii parti réew mi am na lu bari loo xam ne ay jéego yu bari yoo xam dox na ko deuxième élection ku ne xam na ni bu jaaroon yoon rek. Hmm. tey ji le président Idrissa Seck mooy nekk président. Hmm. ci naka ngeen compté woo pour organiser waat euh, parti Rewmi foofee maanaam pour dajale waat seen ay membres. mais actuellement ñun tout hmm. moom à chaque fois ñoo ngi ci def proximité di dem ci communes yi dans les douze di waxtaan ak ñoom di leen gën a motiver ci pour ñu gën a jàpp liggéey bañ a bàyyi rek ba élection ñëw ngeen ngeen ngeen di ko ci fi am foofu non mbetteel non pas de mbaa mbetteel hmm. parce que vraiment ñi nga xam ne ñoo nekkal militants yi hmm. ay nit lañ yoo xam ne ay jàmbaar lañ jël nañ seen lépp hmm. seen énergie pour def ko ngir le jot réew mi mais kenn ku ne xam na nii li am ku ne gis na ko te ci président ah. Idrissa Seck dafa am lu mu waxan daf noonu moom Sénégal rek moo ko ñor parce que du jaar ci ay cadavre pour dem pale kooku loolu kooku du ko wax mu leer hmm. loolu moo tax kenn ku ne gis na élection yi taxawaay bi mu ci mat gi mu ciy def hmm. ak taxawaay gi mu ciy am kenn ku ne leer na ñëpp ok dañu gis ni tamit euh, mbirum euh, lépp loo xam ne jëm na ci dialogue national bi xëy na tekk-tekkaaral gi ci am ci parti réew mi loolee lan moo koy expliquer non dialogue national bi tekk-tekkaar amul ci parti réew mi hmm. parce que. est-ce que taxawaay bi ngeen ci waroon am am ngeen ko. non am nañ ko parce que ñu ngi ci bokk nañ ci. ban taxawaay ngeen ci am ñoo ngi ci participer. ban taxawaay ngeen ci am parce que participer mooy dialogue national bi. Hmm. C25. Hmm. am na ñu délégué ñoo xam ne nii ñoo nekk ci biir dialogue bi. ok mais ku ne ku mel ne honorable député Déthié Fall. Hmm. ak As Babacar sas direction. ak ñi nga xam ak ñi nga xam ne nii ñoom ñu nekkan ci C25 bi ñu ngi ci ñu ngi ci biir. di waxtaan. boo ñu ngi avancé bu baax a baax ci. te ci ay nit ñoo xam ne nii. te amul benn deal comme ni ñu koy diggante. non non non hmm. parce que foo parce que dialogue bi dafa war. Hmm. xam nga Sénégal. Hmm. il faut ñu waxtaane ko. parce que kenn ku ci xam na ni élection yi dem nii. di fiche fiche électorale bi. ak yu baree bare yooyu dañ ko war a càmbar teg ko waxtaan ko pour maanaam ba ëllëgee du am laam-laame ok boo ñu doon defal point ci euh, tolluwaayu réew mi lan nga ñuy wax jamono ji noo réew mi point bi mooy teg mooy dafa taxaw dafa taxaw lan ak lan moo taxaw ci réew mi parce que réew mi actuellement nii hmm. dara doxul secteur benn boo demee secteur commerce hmm. dafa freiné hmm. nga dem secteur secteur boo dem rek nit ñaa ngi jooy réew mi dafa freiné comment comment naka nga ma waxee réew mi dafa freiné jamono ji TER bi ñëw fii ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne jamono ji président mi ngi koy teg fexe ba am deuxième mandat tamit tamit nga ne ma réew mi dafa taxaw xam nga tey rek tey Bakel département ñu doon def benn marche pacifique marché boo xam ne ni askan bi yëpp a génn. Hmm. ngir ay yàqu-yàqu yu bari. amuñu ay yoon parce que. kon mu mel ni seen foofee am na ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne yéen a ngi koy. jànkuwanteel département oublié la. ok la. Hmm. yan mooy jafe-jafe yi c'est foofu. Hmm. benn yoon. yoon boo jël rek. baaxul. boo kon daal Bakel problème yoon la am. problème yoon la ñu am. actuellement tey jii. ok bu xasee taw rek. kenn du génn. amul kenn génn dem fenn. ñëpp dañuy toog. am na am na gox yoo xam ne sax. mënu am accès sax à eh, waxuma électricité. dafa mm-hmm. dafa yomb mais accès à l' kii eh, téléphone rek. Mm-hmm. mënu ko am. ok ci Bakel. kon daal problème mu yoon rek mooy seen jafe-jafe jamono ji ci Bakel. noonu lépp. Mm-hmm. yoon dafa jafe-jafe. ok secteur bi dafa taxaw. secteur bi dafa taxaw nga dellusiwaat ci tolluwaayu réew mi. wax nañ ko xëy na question bi ni mu ni nga ko war a tontoo des na tuuti tolluwaayu réew mi ak jafe-jafe yi ci nekk actuellement. mais xam réew mi. boppus euh, màggat la. metti. boo toll taxawee tey di di détaillé hmm. fi mu tellu ci nit ñi hmm. maanaam doo doo fi jóg parce que secteur boo laal rek hmm. ñaxtu jàng fa en tant que ku nekk ci réew mi vacances yi nga xam vacances yi nga xam ne njiitu réew mi am na ko ban gis-gis ngeen jëm xëy na ñenn ñi ngi ñi yenn vacances yi jàpp ne réew mi fi mu toll ci jafe-jafe yi xëy na vacances jotul woon est-ce que yéen gis-gis boobu ngeen ci amee no man xam nga li ma gis mooy xam nga vacances fan la lañ ko vacances vacances ñu ko def ci biir réew mi parce que réew mi fi ne nii kenn waru koo jiite sa xel dal. Hmm? Hmm. nga dem def vacances di bàyyi nit ñi ci ci ci xoola bënn xoola àll bi. Hmm. xoola foo dégg rek. secteur boo dégg rek ma ngay metti xool nawet bi ñu fi toll. ak yëpp ak ne nii da ngay gis foo xam ne nii dañuy bu ndox dalee sax tuuti balaa kii mu am bënn. xam nga normalement kooku. kenn waru ko bàyyi di di di vacances fenn pour pour def Sénégal actuellement nii. ok wax naa li fépp metti bu dee mbirum ressources naturelles yi maanaam li nga xam ne Sénégal am na ko or Euh, gaz bi ak pétrole bi bari na coow yéen ban taxawaay ngeen ci amee. non xam nga kooku hmm. le président de wax waxoon lu yàgg. Hmm. pendant des années. Hmm. da ko waxal depuis 2016. parce que président ñaare li muy wax heure bu ko waxee nit ñi ci bàyyi xel mais dañ ne bu yàgg mu yëg daf ne maanaam li nga xam ne mooy wàllu wàllu gaz bi ak pétrole bi ak yépp nañ nañ. assemblée nationale am na ñu ñoo xam ne nii responsable yoo xam ne mënuñu wax ci mbedd bi ah? hmm. mais buñ bu ñu defee nag maanaam comité parlementaire bu ñu ko defee hmm. ci assemblée nationale woo ñi nga xam ne ñoo ci xam dara ñu wax ci loolu day leer kon kooku déjà yaakaar naa kooku yàgg na ci wax bu yàgg yàgg yàgg wax na ko hmm. kon kon normalement loolu moom waxuñu ko parce que nit ñi dañuy président Idrissa moom lu mu la wax rek jàppal da ngay gis da gis xanaa yéen nga yéen a koy gis <laughs> non Sénégal Sénégal. li di quatrième président kenn gisagu ko de. non waxuma da nga déglu. Hmm. non dina ñëw parce que Idrissa. président hmm. Idrissa. dina ñëw ak ex na boo bëggul. dafa ndànk président hmm. Idrissa. yaa ngi fàttaliku gouvernement bu bees bi mu fi amee. gouvernement Macky Sall bu bees bi ñu taxawal bi mu mu ne leen gouvernement dox parce que ñaari banques yi mun ñoo yor mun ñoo mun ñoo doxal am réew. ok duñ caa toog si rek ngeen gën ñu changé ko. loolu nekk sa sa gis-gis. xam nga lu bari lu bari loo xam bu ko waxee rek. Mm. da dem ba toog tuuti rek. ok kon ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ci wàllu xalaat ak yu mel mm. noonu. gis nañu tamit euh, tey président dem na fi nga xam ne moo di RFI yëkkati fay kàddu ci wàllum grâce présidentielle nee na ci moom la des ngir mu bàyyi xalifa Ababacar sàll maanaam bu ko neexee mu bàyyi ko maanaam daal nekkul loo xam ne kenn da koy forcer yow ban jàngat ngay def ci sorti boobu. nga xam ne mm. ma fi def jàngat tuuti mais grande présidentielle moom président rek moo am droit def ko. ok. mais du keneen. waaw comme hm. nag moom mooy seet nu mu ci taxawee rek. Hm. mu taxaw ko mais moom rek. Hm. moo am droit grâce. mais dañ ñu bëri dañuy gis ne mbirum Khalifa Ababacar Sall xëy na am na yeneen yu bëri yoo xam ne moo nekk ci ginnaaw parce que bu taxawee ne euh, ñëpp xam nañ ne grace ci présidentielle président moo koy def mais bu taxawee ne man ci man la des donc est-ce que ñu bëri dañu jàpp ne xëy na am na lu nekk ci ginnaaw maanaam moo fa bàyyi xalifa euh, ci kaso bi. waaw parce que parce que moo ko bàyyi mooy. Hmm. xam nga grâce présidentielle. Hmm. président président de moo ko moo koy moom rek moo koy yor. Hmm. cim réew. ok kon tey bu ko neexan bu xëy dafa fanaan. kon nag faa bàyyi. bu ko neexan tey jii dafa fanaan. su ko neexanti bañ ko bañ li ko yoon may ci man da bañ a def hmm. ma yoon may na ko ba bàyyi ko yoon may na ko ci bañ koo bañ a bàyyi kooku nag moom hmm. ci xalaatam lay dem moom mooy xalaat mooy xool nu mu koy jàngati rek mu def ko ok mais foofu moom doo fi <laughs> voilà xam naa <laughs> dinañ dellu siwaat ci loolu ah. waaye bëggoon xam sa euh, jàngat ci ak fi mu toll nii tolluwaay politique bi ci département bu Mbacké xëy na am na loo ci xam bëri na ay kuréel yoo xam ne day am ci diggante yenn responsable yi yow noonu lan nga koy jàngatee non c'est fii hmm. au niveau département Mbacké jàngat bi ma am ci politiciens yi mooy ñi fi nekk duñu ay politiciens. Mbacké gi ñi fi nekk duñu ay politiciens. ay lan lañ déedéet maam ñu bari ay wutkati xaalis lañ. wutkati xaalis waaw. Hmm. parce que man mosuma gis hmm. benn député bu ñu fal ci département bi hmm. moo gis mu dem assemblée taxawal fa maanaam département Mbacké wala région Diourbel nangam ak nangam. kon député yi liggéeyuñu. nga bëgg a wax. non gisuma lu ñuy liggéey. mooy liggéey mooy xaalis daal la ñuy xaalis comme bon dañuy fexe rek. Hmm. yuuxoo yuuxoo maanaam xam mooy ki fi nekkal askan bi. Hmm. na boo waxee loolu mooy loo bëgg a wax. seen bopp lañ fi nekkal. seen bopp lañ seen diggante. maanaam xuloo yi mooy rek affaire xaalis bi rek. Hmm. parce que nit ki am. sa morom du am. mais di coow li. yaakaar naa fekkante ne nii. ñi nga xam ne ñu am ndombay tànk département yi moo doon soxlan kon moment bii département Mbacké du mel ni mel parce que maanaam fii lu ne am na na fi am hmm. mais mosuma gis kenn koo xam ne jël position benn position di ko défendre pour le département mais na ko défendre pour sa poste loolu laa gis bari na ay ndaw yu fi nekk di yëngu ci politique euh, dañuy jàmbat lu bari ne xëy na yenn xaalis yi bu ci duggee yenn responsable yi ñoo koy séddoo seen diggante ñoom duñ ci jot waaw loolu tax ma ne politique na changé hmm. a xaalis hmm. bu ci génnee xaalis mbaa ñu bëri duñ ci génn waaw bu ci génne voilà très bien. Hmm. parce que dañu ci waroon a génne xaalis. Hmm. maanaam génn ci jariñ sa gox. Hmm. maanaam maanaam boo def rek jariñ sa gox. nit ki nga xam ne rek dafa am ambition rek. pour jariñ ko xam. maanaam mu ñëw pour politique. parce que da nga xam ne yow li ngay wut da ngay li ngay wut. dem nga fële. am nga xam-xam boo xam ne nii. mën ko utiliser pour sa gox jariñ ji. am nga moyen boo xam ne nii. mën ko utiliser pour sa gox jariñ ci mais doo am mais doo dikk rek pour mm-hmm. wutaat ci yokkaat ci sa poche rek mu gën a diis pour nga mën a nekk euh, kii loolu ok euh, Touba lan mooy euh, fi toll jafe-jafe yi nga xam ne gis nga ko ci wàllu assainissement wala loo xam ne peut-être bu ñu ko tegoon loxo mën naa am dëkk bi lu bëri dina changer ci wàllu mais Touba nag assainissement bi moom mm-hmm. man dama xaw a jaaxal tuuti parce que mm-hmm. damay jël tey boo demee corniche bi maanaam goudron boobu da gis ni mel bu tawee tawitu day taa atu dañuy dañuy teggi ak li ci dugal ci ak ci dugal ci alal ci pour assainissement hmm. xoolal tey jii bu ñu tawee rek du too dem saam hmm. yaakaar naa nag waa saam nag ñoo gën a sonn hmm. ñoom ñoo gën a sonn ci Touba uh-huh. parce que ñoom yaakaar dañ leen fàtte parce que dama xamul amuñu képp ku leen ku leen waxal wala lan la mais dañoo sonn problème mu lan parce que amul yoon maanaam tey bu na tey boo xam ne nii xin na rek ñoom ñëpp kenn ku sa fit dem na ci kaw parce que dem parce que oto du dem saret du dem xam nga kon ñooñu dañu ñooñu bi ah, hmm. mais lu ci gën a bari hmm. maire bi am na ci part de responsabilité. Hmm, de responsabilité. parce que parce que ñoom. est-ce que euh, du état moom moo war a appuyer maire bi. pour que xam nga noo xam nga à à état dafa am ay pàcc pàcc. parce que Touba commune la boo xam ne moom moom boppam. dafa am loo xam ne ni maire moo koy dox. pour état fekk ko ci. xam nga mhm. pour maanaam mën koo mënoo def. Mhm. am loo xam ne ci compétence maire la. moo ko war a def. mais xam nga foofu. Mhm. xale boobu demal. man man man man man bu ne ba damay damay bu ma fa jëm damay gaas ma oto ma dem damay dugg sax dem waaye mënoo faa dem. parce que mënoo fa egg ak sa oto doo àgg. Mhm. am na jur boo xam ne dama dama dama réer ci ndox mi. <laughs> ok léegi léegi léegi léegi monsieur Diakhaté loolu lan nga jàpp ne mooy saafara si fi mu toll nii nga xam ne bu ñu ko defoon xëy na Touba dina gën a méngoog jamono ci nga xam ne jafe-jafe askan wi dina gën a mën a wàññeeku. mooy delluwaat ci bind ma rek. Mhm. xam la mhm. bañ a wut njëriñ loo fekke maanaam baatu njëriñ loo fekke ñu teg ko ci suuf. pour wut l'intérêt commun maanaam loo xam ne nii askan wi yëpp ñoo ko soxla xam la di ci ànd pour bu ëllëgee ñu mën ciy jëriñ maam bul ne bul wutal sa doom pour étage hmm. wala nga wut loo xam ne da nga fiy bàyyi ëllëg wala nga wut loo xam ne di nga di koy xoolee di la ko di la ko ñee hmm. déedéet hmm. da nga war a jiima gox bi nga dëkk nga tabax ko ba nga xam ne nii ci xel mi la suñu borom jox mhm. ba xam ne bu ëllëgee ko fu dikk ni ah diw ko amoon na xalaat bu def lii mhm. parce que loolu moo moo moo manqué moo bu weesoo loolu gis nga xam ne ñoo fi nekk xëy na amul ay usine amul dara ndaw ñi ñàkk liggéey jigéen ñi amuñu ci lu bëri luñ jàpp loolu ban politique la war a def ngir mu changer mais loolu ci état da ci am part hmm. lu ñëw ngeen bëgg yaakaar naa boo dee seet euh, mooy deuxième capitale du Sénégal waaw li yeewoo Touba yaakaar naa fu Dakar rek du fa yeewoo dégg kon élection sax matière élection sax électorale tubaa sax dafa am solo ba nga xam ne nii moo tax dañ koy wut. ñu bëri di ko xëccoo effectivement kon foofu hmm. état war na fa bàyyi xel xam ne tubaa gi war naa am ay usine pour l' de des jeunes.

boo gisee région yëpp Diourbel moo ci gën a moo ci gën a sonn. Hmm. est-ce que waaw Diourbel hmm. moo gën a sonn ci région yi. moom voilà est-ce que tëdd ci logique boobu la njiitu réew mi nekk ba tax na daanaka financement DER bi nag gis nañ ko tamit quand même <laughs> DER. non xam nga hmm. xam nga man DER bi. waaw <laughs> bu mu mujjee sori parce que. déet lu tax financement <laughs> yow yaa ngi jàmbat. ñoo xam ne peut-être jigéen ñi ñàkk ñàkk seen ak liggéey. ñu jox leen am ah financement bi dugg na Touba nag quand même. non man parce que man du ma gis gisagut sax dox sax. ba kenn sax di ma wax ci DER bi. loo xam ne mën na ko ci am. Ah DER bi ngay wax na dee lan moo tax nga tuddee ko dee. non financement man gisuma financement. gisuma financement xam nga financement day dama yaakaar ne bu dee am. Hmm. dafa war a tëddee njaaxaanaay. Hmm. dafa tëddeewul njaaxaanaay waaw man ma gis rek laa la wax. Hmm. dafa tëddee njaaxaanaay mooy. xale yi pour nga booy financer doo da ngay maasale du opposition du pouvoir du kenn jeunesse Sénégal la dégg nga nga ne leen banque bii kat def nañ ci xaalis dégg nga. Hmm. jeune boo xam nga de am nga critère bee demal ci banque bi ñu gunge la. xam la hmm. nga liggéey. Hmm. waaye jël jël ma saa ma jox ko de cent mille. fekk am na problème mu cinq cent du dem. Ah, jël ma dem ma jox ko un million. xanaa fekk am na am na problème mu deux millions. kooku mun ko yóbbu fenn. xanaa DER bi de boo gisul bourse bourse familiale yi moom moom moom ñi ko ñi ci jot bari na moom loolu moom xanaa doo ko. <laughs> non ah ndimbal la xam nga noo xam nga man bourse familiale yi ma ko teg mooy. waaw ah. yokkute ndóol. ku ñàkk xaalis ñu jox la vingt cinq mille wala nangam nga ne. non xam nga yokkate ndóol bi xam nga yokkate ndóol bi mooy lan. man. Hmm. bul sum yàlla fekkante est-ce que yow tamit xalaat nga ñi ci jariñu. non non waxuma ñu ci jariñu xam xam nga hmm. nit ki. Hmm. da ñëw dimbale ko mu dem. Ah. mais bu ko taayal loo. loolu parce que yow ñi nga xam ne xaalis boobu. commune boo xam ne ni dafa da nga da nga da a bénéfice de cent pour su fekkee ne nii. créé nañ ay am ay ay usines ak i ak i mini entreprise yoo xam ne nii dañ ci fee liggéey xale yi ñu jël ñu jël recruter xale yi nga xam jàpp nañ ne ñii kat seen kër seen dool déewul nooñ ñu jël jeunes yooyu dugal ci biir ñu liggéey ji fay ko weer yaakaar naa loolu moo gën a ëpp solo pour jox nit ki vingt cinq pour deux mois kon daal yoon bi ñu ko jaaree baaxul noo yoon bu baaxul mhm. kon jàppoon nga ne xaalis boobu waroon naa mën a dugg feneen non jur lu ëpp loolu xam nga président Idrissa Seck dafa amoon benn bu mu def mu ne mhm. chaque commune day bénéficié wu cinq mille cinq milliards. xam la hmm. tey am na commune yoo xam tey bu ñu amoon bu ñu amoon cinq milliards ci année bi hmm. mën nañ faa créé loo ay ay entreprise ak usines yoo xam ne doomi commune bi yëpp nañu ci mën a liggéey hmm. muy dem parce que lu baree baree bari Sénégal maanaam euh, liggéey fii yomb na mais moyens moo amul kon bu ñu leen jàppale ak i moyens rek dañuy liggéey. ok euh, yaa fi tudd léegi Idrissa Seck xam naa waxtu bi li ci des bariwul hmm. moom élection yi jàll moo nekkoon ak sànni tàccoom wala yii di ñëw am ngeen yaakaar. non euh, samp ko mu mu demati. demati non 2024 non Idrissa Seck. demati sax la ñuy wax demati. non dama ne Idrissa Seck. Hmm, waaw maanaam dese na ko ay élection li nga xam ne ñu wax ne moom. 2024 hmm. incha allah mais dañoo gisoon Idi faux président Idi nangam président te ba léegi. mais est-ce que da xam ne nag yàlla. ak dogalam. kon yii di hmm. ñëw mën nañoo hmm. am yaakaar ne idi mën na caa bokk incha allah di hmm. bokk yàlla akub dogalam tànk rek suñu borom dogalagul ne nit ki daa nekk nangam rek lu nekk est-ce que tamit Me Ablaye 27 ans la di la def. waaw ah, mais est-ce que tamit fi mu ko tuddee ci nit am koy jaarale. dégg nga dafa moom maa ak seegul. ok mën naa mën naa am. est-ce que tamit bii ñëw. Uh-huh. 2024 bii ñëw. Hmm. le président Idrissa Seck mooy le futur hmm. président du Sénégal. ah bon ca lool cim. selon vous ca non non mais même même loo koy loo koy won mooy. Hmm. li passé rek. xam nga président Idrissa Seck loolu moom ñu bëri nee nañ vote affectif moo fa amoon maanaam murid yi faral ko ak. ñeneen non man man département bi ma nekkan yaakaar naa. ku xam ku xam bu fu ma nekkan. ñeneen na nga fa. ca dañoo wote. man loolu man loolu. loolu terewul département bi nga ah. nekk dañ ko faa gagné non. non mais bu ñu ko gagné ci hmm. nga xam ne. Hmm. jéggi na fa ay jéego yoo xam ne. est-ce que te du Sénégalais yi nag ñoo ko joxagul nag hmm. bopp dëgg. non non defal ndànk defal ndànk gis nga euh, président Idrissa Seck c'est le meilleur bi nga xam ne Sénégal actuellement ne nii guddo gi mu nekk moom rek moo ko mën a génne. Sénégal jafe-jafe yi mu nekk. waaw moom rek mën a génne. <laughs> parce que xam-xamam ak compétence am. Hmm? Hmm. ak xarañam ci wàllu liggéey hmm. dégg nga ak nu mu xamee liggéey ak nu mu xamee senegal kooku moom rek moo ko mën a génne bon boo fàtte fàttali ko senegal bi muy doog a ñëw moom bi ñu ko falee premier ministre dafa jëlan dafa jëlan yépp senegal yëpp def ko carte géographie xool danañ ma ko xool foo xam ne nii rek am na jafe-jafe nañu ko def rouge rouge yi mbaa du bari waaw boobu bu bari de bi muy bi muy bàyyi yóbbu na ko à 65 pour cent. mu nekk ab jéego boo. mu jéego boo xam ne nii mm-hmm. jéego yu bari. Mm-hmm. te yaakaar naa même baykat yi ci ñu bare bari. Mm-hmm. dañ ko ñu koy sant. voilà ndax yaakaar naa moo leen njëkk a njëkk a njëkk baal ay bor yoo xam ne nii. yu bare bari sax la. voilà baykat yooyu tudd nga leen ak sàmmkat yi xam naa foofee sax la ñuy daaneele te fi nga nekk xëy na bari nañ fa loolu ak sàmmkat yi n'est-ce pas. Euh, jamono jii de ñu ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe yow lan ngay wax ci loolu muy nawet bu yéex beeg xëy na seen jur gi dee gi mel noonu. waaw faaw loolu nag bon nawet bi moom. kenn rek <laughs> nawet bi xam nga nawet bi moom. mais est-ce que baykat yi tamit ci wàllu jiwu li war a jot jot nañu ko. non non xam nga parce que tamit bu nee baykat yi ak euh, li nga xam mooy sàmmkat yi gis nañ ne ren tabaski bi manqué na xar ak yu mel noonu. xam nga xam nga xam nga jiwu moom. Hmm. ne ko Sénégal joxe ah taxul nga nekk baykat. parce que fukki kilo gerte cinquante kilo gerte vingt gerte nga jënd ko loolu mënu cee mënu ci mënu cee bay bu njëkk. boo demee ci at yi ci ginnaaw sax hmm, ku mel ne Senghor doon doon dañ doon dooleel baykat yi ndax baykat yi ñoom normalement am réew am baykat moo ko yor soo demee ci yeneen dëkk yi yeneen dëkk yi baykat yi ñoo yor ay avion ñoo yooyu ñoo yor lu ne ñoo nekk ay milliardaires mais boo ñëwee Sénégal Afrique baykat yi ñu ay pauvre parce que baykat yi ñu ko waroon dooleel. kon il est temps ñu taxaw leen. il est temps ñoom il est temps hmm. dañ leen woon taxaw. voilà waaw parce que parce que bu leen dooleel rek. Mhm. ñëpp ñëw ci mbay. voilà mu mel ni waxtu bi jeex na lan ngay tàggoo. bon ma ngi nuyu seen organe bi parce que 24 actu yi. Mhm. vraiment yéen a ngi liggéey liggéey boo xam ne nii liggéey bu am solo la. Mhm. te ci normalement maa ngi lancé un appel ci nit ñi ci nañ ci bàyyi xel. seen si parce que information yu am solo ngeen di jox yoo xam ne nii. yu am maanaa la. vraiment kooku ci di di leen ziar bu baax a baax. te ci ak seen disponibilité bi ngeen am. invitation bi yëpp mm. vraiment ci di lancer un appel ci ñëpp mm. ñoo xam ne ni ñoo nekk ci mm. parti réew mi ñoom ñëpp nañ nekk benn te li xam ne 2024 le futur président de la République le futur président c'est le président Idrissa Seck <laughs> kon nañ ànd nekk benn rek bu kenn xaddi bu kenn tay ci xam na nii dañuy dem. <laughs> jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax euh, di ko gërëm Moustapha Diakhaté tey moo nekkoon suñu gan ci invité de la rédaction nekk tamit responsable politique réew mi di yëngu fi nga xam ne nag moom moo di Kidira ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci euh, wuy si gi nga xam ne wuy si nañu ko ngir ñu sekk ak moom ay ponk yoo xam ne dina soxal foofee nga xam ne fi la euh, jógee muy Kidira waaye tamit dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba ak li ko wër sant Cheikhouna Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sant Diakhaté borom Sam TV moom tamit ñu ngi koy koy sant baax euh, di ko gërëm euh, di leen jox di daje incha allah rabi ci beneen jotaayu invité de la rédaction jërë ngeen jëf.